ngir jappalé ay joueuram ci diru mbass mi di coronavirus supporter yu stade de Mbour jagleel len ay ndimbal nam sax amon na ñak diggoo sen digënté ak comité directeur. li fi am moy suñu dirigeant itam euh, demb ba légui ñu ngi waxtaan ak ñom ndax li bi mu ki nga xamantene mo joxe ndimbal li muy président d'honneur comité supporter stade de Mbour. ba mo wowe dimanche bi passé né ma yëfi de mujj sorti ma wo ñi nga xamné ñoo ngank équipe ay côté mercredi yoyu ci la ma président wo né ma. bu ñu sañoon affaire bi ngeen bàyyi ko ba 15 juillet ñu ne leen 15 juillet ak lii bokkul ça n'a rien à voir lii nag pour suñuy jour la pour motiver leen parce que yëf yi metti na fi ñu war a jaar nag jaar nañ waxtaan nañu ak dirigeant yi yëgal nañ leen ko bañ nangul ñu ko waaye dañoo dem ba ci biir nañu loolu mënul nekk nañ bàyyi ba 15 juillet mu nekk ndimbal bu toll si ñetti million jëm ci joueur ak staff technique bu stade de Mbour waaw 40 euh, jours stade de Mbour yi nga xam ne ñoom ñu ngi fi ñëpp am ak staff technique bi ku ci nekk jox nañ la saaku ceeb diwlin suukar

ñëw xam ne lii lu baax la di leen ci encouragé di ko def di leen ñaan beneen yoon bu ñuy jël ñu mel ni ñu toog ñu waxtaane ko nam sax mbir mi xawoon na sooxe lépp mujjee jaar yoon ku si nekk jot li mu yellool di ñaan mbas mi di coronavirus jóge fi